wa salaamualeykum ñi ngi nuyu ñëpp am naa kàddu yu du gudd eh, di nuyu waa Pikine yëpp di nuyu waa Sénégal yi ñuy déglu di gërëm suñuy mbokk coalition wàllu ci lañ ñu boole ci xeex bi nga xam ne xeexu démocratie la xeexu Sénégal la kon kuy yeewoo Sénégal rek même ku ci nekkul ci politique Euh, xeex bi engagé na la mënuma jaar nag ci tur yi ndax fii ñu fi nekk ñëpp samay am di jàmm lañu samay xarit samay yaay samay pap samay mag su ma ci naroon jaar ci tur yi defe naa dinaa jël guddi gi wala dinaa fàtte ñenn ñi mais maa ngi nuyu ñëpp di wax ni euh, lii dafa di situation boo xam ne lu Macky Sall planifié depuis longtemps la lu mu planifié depuis longtemps la mooy comme moom day tëjoog ay nitam ñu koy jaay ni ñoom ay stratège lañu te seen stratégie yëpp weesuwul tortuosité mooy noo mën a fexe ba jël lu dul dëgg fexe ba mu xaw a niroog dëgg loolu mooy seen stratégie kon moo dafa am ñu mu ciblé woon ne ñii mënuma koo ñàkk bokk na ci d'abord le nord du pays ñun ñëpp xam nañ ko comme jàppale ni titre foncier la te li mu yoroon ci ay mandarga ak ay sondage wanoon na ko ni bu opposition bi compétiré normalement foofu dina am commune yoo xam ne dina ko ñàkk te moom jàpp na ni ñàkk benn commune foofu rek mooy défaite suprême moo tax li mu def yëpp pour ay list opposition bañ a compétir dans le nord looloo ko andi noonu la ko defee feneen ak feneen ay Kédougou ak yeneen ak yeneen ba nim ko defee fii ci Pikine kon lu mu planifié la woon tey nag ñu wax ni xeex bi du doon xeex bu yomb xam ngeen ndax lan Macky Sall dafa ñàkk élection yi moo tax ñoom suñuy wax askan wi da leen di reetaan ndax ku ñu dóor ba toog ci biir bi sëlëm ko nga ne wàcc ma ma daan saax bi may dugg maam jaara ak mari saw dañ ma ne tey marron beige nga sol may leen soo du mooy waa ji ba mu xalangu da nangu drapeau moo tax ma sol ko kon li tax ma ne xeex bi du yomb nag waaye xeex bu bu ñu mën a gañe la parce que lépp ci détermination la am na ñu ko wax léegi Macky Sall xamul ay layam layami xamul ay négociation ku leen naan jàmm ak ma ak Masamba da leen a bugg a livrer Macky Sall Macky Sall boo doxee doxu euh, xaw a kàqatar ci àll bi ak ah, il est sans état d'âme li tubaab naan sans état d'âme mooy Macky Sall mosuñoo am président bu ni mel kon kooku jàmmarloo kese moo lay permettre li nga moom nga foqati ko te ma yàgg leen wax nag ni noonu mu mel ci soxor ci mun a jaay doole ci gannaaw bu mu làqatoo ci gannaaw lu mu yaakaar ni moom moo ko mun a aar muy police gendarmerie ak ñoom seen nu ko rawee nag la ragale nu ko rawee la ragale fit amu ci dara moo tax su làmbee mu nooy day continuer li tax nag ma ne du yomb mooy makisal Sall moo ko dese ndax ku dem élection li gën a rëy ci électorat Sénégal département Mbacké ñu dumala fa département Diourbel ñu duma fa ville de Thiès ñu dumala fa département Rufisque ak ville de Rufisque ñu duma la fa département Kër Massar ñu duma fa département ñu duma la département Dakar ñu duma la fa région Ziguinchor ñu duma la fa kooku lan ah département Kaolack ñu duma la fa loolu boo ko génnee ci Sénégal ci électoral lan moo ci des jeex na moo tax lenn na ko dese pour mu am lu xaw a lu takku tuuti lu dëgër mooy ville de Pikine bii moo tax ma ne détermination kese moo tax ñu mun a régler problème boobu bi ma docteur Cheikh Dieng wooye dama ko ne envoyé ñu éléments yi ñu xool waaye bi ma gisee parce que ñii avocat pour pour avocat bi yëpp suñuy avocat la ñun te xam naa leen xam naa ni duñu traiter un dossier à la légère te ku ma ci laaj mu ne ma dossier bi c'est du béton moo tax su dul woon dara sax par solidarité waroon nañ fi nekk mais suñu amee garantie ni dossier bi lu ñu bugg a la day yokkaat li war a tax ñu teew fii tey ma daaneel nag ci lancer un appel parce que saax damay waxtaan ak kenn rek ci suñuy ñoñ ñun mu ne ma waaw ñun dossier bi am na luñ ci xam ngeen jéggal ma nag man dafa am nu ma yàlla bindee mooy damay wax mbir mi directement mu ne dafa ñun xam nañ ci ñu ci xam et cetera parce que defe naa Marie Sow moom ma interpellé ne ma dégg naa am nañ quelque communes yu ngeen gagné jox nañ seen liste conseil de ville Timbo ma jël sama téléphone woote ki ma woo ne ma déedéet joxewuñu dara mais xam naa ci liste yi lañ koy jëlee directement ñu waxtaan ci biir mu ne ma waaw ñun sax am na luñ ci xam leader yi dañ ñu waroon woo balaa ñuy ñëw. ma ne ko waaw mu ne ma tamit bi ñu supprimer suñu liste ci ville bi gisuñu wàllu ma ne ko waaw léegi ñaar loolu lu mu tekki ci yow mu ne ma waaw c'est que ma ne ko wax dis nga xam nga li ma lay wax ci lu gàtt lu gàtt ngeen jéggal ma ci terme ma ne ko lu gàtt laa lay wax mooy bu leen ñu fontoo su dee liste bu ñu rejeté mais wàllu moo ñu ëpp liste yu ñu rejeté est-ce que ñun dañoo dem xeexal wàllu Bignona rejeté dañ fa liste wàllu ci département bi est-ce que ñun dañoo dem xeex ne wàllu dañ koy delloo si pourquoi ñu naan ñu Pikine bi ñu rejeté suñu liste euh, wàllu défendre ñu loolu du wax ñaareel bi mooy man Macky Sall ak ñi mu àndal su ma amoon su su doon sama sañ man kese rek benn kër sax duñ ko gagné Sénégal waxuma laa carte benn kër kon tey benn wàllu gagné fii Pikine moo ma gënal téeméeri junni yoon ñu ne makisal moo ko gañ est nit bu nekk ci opposition mun na xalaat ñu naan ab Ablaye Timbo moo jël pikin te boobu jamono docteur Cheikh Dieng nekk fi te ne ci opposition dafa am loo xam ne xel moo koy mottali xeex bi ñuy xeex stratégie da cee bokk moo tax dañuy wax képp ku ànd ak ñun moo ko ci turu conférence des leaders bi yépp nag képp ku ànd ak ñun wala ngay suñu sympathisant xeex bi sa xeex la nang ci def la nga ci war a def mu mel ni tey euh, Yewwi Askan Wi la ñu bëgg a xañ commune bi lépp lu mu laaj nañ ko ci def parce que loolu mooy dooley opposition lépp luy affaiblir Macky Sall day yokk opposition bi te lépp lu yokk opposition bi daf ñuy gën a jegele ci ñu déjjati ko fi 2024 loolu laa ci bëggoon wax ci sama tur turu leader yi ak turu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun di félicité ñëpp nag kontaan naa bi ma ñëwee fekk fi Birama nga xam ne moo fi toogal yeewi askan wi noonu laa ko waxee waa yeewi askan wi yëpp nag te dafa am xeex yoo xam ne bu desee dootul affaire u fu ne nit war na faa mobiliser wu ñëw ñu xeex xeex bi ma daaneel nag ci lancer un appel à la justice dégg naa union des magistrats daa di lancer un appel aux juridictions d'appel surtout pour que ñu assumer une neutralité ni ñuy régler question yi ñu ngi leen lance un appel parce que justice dafa di pilier bu fondamental lañu ñu woon ba réew mi tàkk fi ci jamono nañu moytu di defaat yu mel noonu ñu ciy associer justice di leen instrumentaliser nañu wax le droit rien que le droit jàmm ne ñooy parce que dafa am loo xam ne kenn dootu ko nangu ci réew mi ñii nag yaakaar ni affaire bi affaire u la ma fàttali leen benn mbir foofu lay daanele ñoom tey def nañu recours à Mbacké def nañu recours à Rufisque def nañu recours à Sangalkam def nañu recours à Kër Massar def nañu recours à Oussouye ak yeneen ak yeneen bu ñu làmbee bi mu nooy nañu xam ne yeneen yëpp foofu lañ koy jaarale nanguwaat commune yi kenn ku ne toog fi nga toog di seetaan naan affaire u keneen la loolu gàcce la ci opposition kon nañ ko def suñu affaire u bopp xeex xeex bi récupérer ko parce que loolu dafay am solo ci fi ñu jëm ndax foofu laay daanelee résultat yi boo ko jëloon su dee ci liste majoritaire yi kese département yooyu mooy département yu ëpp lim ci ay député boo ko gañee rek nu mu tuuti tuuti làq nga entre trente cinq quarante ou quarante cinq député doog a ñëw ci liste euh, proportionnelle kon loolu du lu ñuy sàggane Pikine du n'importe quel euh, département moo tax ñu ngi leen di garantir di leen réitérer que ñooy bokk xeex bi lu mu laaj dinañ ko def ensemble incha allah ñu ngi leen di gërëm